la tubab nan rebroussement. re. rebroussement. très bien. ndax ñàngum géwél amul woo capillaire noo ko waxee baax na. dégguma nga ni naa ñàngum. ñàngum géwél amul woo capillaire noo ko waxee baax na. rek fii la la may. ah jërëjëf Doucouré. da ngay am jërëjëf an sa sa mi ngi la. téléphone na ma dañu bëgg yow nga suñu président. yow la. sénégalais dañ leen liggéey. terre bi kan la. train express. yow mais ñu bëgg ma sonal. yow lépp yow. yow yow bi dafa bëgg a bare na rima. ah ma wax rek. te na lool. moo yow. mais sa buum gi ne boo ko tekki woon rek ñu jóg. door demal demal nga pendre sa bopp. wax rek te ñàkk ñu am alal kon nga bu yàgg. doon loolu la keroog sama fecc yi xaaroo fa ver et pourtant danga maa boole ci moom. Ah, yow yaa ko wax. bi ma lay waaw mu ngoog est que da ngaa xaaroon fa ver waaw s'il te plaît tamit dimbale ma nga régler situation bi sinon population bi il elle va souffrir parce que dama la yomb yaa ngi may gis comme ça dama xol tout temps motax nga dafa ne man n'importe quoi la quoi yo ay est-ce que xam nga may kan xam nga may kan hein mo dang ma faté tontu ma amo réponse amna ta réponse mon réponse la xam naa ci len de lu mu yag yag yag yag ancien président ngay doon duma ma nitu fii kaay du ko bu ko yóbbaale ko yow tam lu mu yàgg yàgg yàgg ancien jardin ngay doon